li ñu dajale tey benn euh, ndaje la moo xam ni at mu nekk dañ koy def ci wàllu musique maanaam ñu dajale ñëpp ñuy yëngatu ci wàllu musique ñu dajale waxtaanee euh, euh, filière bi boobu moo boobu xam naka laa koy waxee ci wolof mais ñu saytu li nga xam ni ci sunu ci secteur daal jar naa jar naa améliorer jar naa ñu waxtaanee sunu sunuy mbir daal voilà ñu saytu ko beneen pàcc bi tamit mooy artistes yu ndaw yi nga xam ni dañuy tàmbali ci di yëngatu ci wàllu musique ñu créer leen benn béréb boo xam ne buñ fa ñëwee euh, dinañ leen jox ay euh, jumtukaay yu mucc ayib yoo xam ne mën nañ ci jariñoo yoo xam ne du fépp lañ koy am ci ci dëkk bi maanaam ñi nga xam ne yenn saa yi ci restaurant yi la ñuy la ñuy jouer du noonu la ñuy présenter musique Euh, ba pare euh, wanale leen ak ñu jóge bitim réew ñoo xam ni ñoom peut-être li ñuy def mën na leen intéressé donc